بمناسبة هذه الذكرى الإسلامية التي نحتفلها في كل سنة نحييكم ونبلغ لكم تشكراتنا القلبية لإقامتكم في إنجاز هذا اليوم بقي نغلين دي نيو ginnaaw ba nu سبحانه وتعالى bi subhanahu wa taala ci te duñu ci lenn ndax diggante bi ñi fi fàddu kenn xamut nu mu toll te gënuñu leen ci genn anam boo moytuwul sax ñu gën ñoo mën a jaamu yàlla gën nu koo jege gën noo mën a defar suuf boo moytuwul nu nekk ci safaanub loolu te teewut yàlla may nu nu fekkee kon noo koy sant ci xéwaluk fekkee di ko ñaan mu mayaat nu nu fekke ko at yu bari te at mu ñëw jataay bi nekk jataay boo xam ni bu am njariñ lay doon boo xam ni ay kóllëre dana ci juddoo yoo xam ne dañ koy fasante ngir yàlla ak cofeel yuy law te yàlla rekk tax ak bokk goo xam ne day defaru ba faw te du yàqu waaye yàlla dimbali nu tabaxal nu sunu pas-pas ba seytaan bañ koo mabbu bañ ca dugg loolu mu ne woon danaa leen galajaane ca yoon wa dikkee leen ci ndeyjoor ak càmmooñ yal na yàlla musal nu ci pexeem yu rëy yooyu ba nu mucc ci moom julli ci yonent bi nga xam ni sallallahu alayhi wa sallam mooy mbootum nekk gi di mbootum lépp lu nu amal nanu yàlla dimbali te xiir nu ci ak njub ga nga xam ne ca la ne woon te woote ca alquran ñëw di lay wa Eh, mu awale ca saxaaba ya ak mboole seen ña leen toppoon seenum ngir noo ngi leen di nuyu te di leen jaajëfal ci jataay bi ak téye gi ngeen téye bokk gi ndaxit lii rek moo mooy li am solo ndax at mu jot ma wax leen ko benn oto ci yi ma indi li muy lakk ci essence duma ko jëlee ci dëkk yi ma jaar te su ma fi ñëwee lu tolloog li benn oto bi di lakk mën naa ma maye ko fi bala ma fee jógee kon war nañoo xam ne wut lu ma am indiwuma fi oto yi bu fekkee ni yii ay huit cylindre essence lañu yii ay six cylindre essence nga def cam ndox mu ñëw te woote woon ne nañ ma ko yónnee ma doog a ñëw tam leer la nañ ne ñi fiy nuyoo bi nga duggee dëkk bi gisoo fi benn entreprise wala société wala usine ngeen jugee ci feet la ngeen amoon ngeen def ko ci feeti tabaski la ca des dem ci ay koddaay la ci des ngeen def ko ci bis bii ngir bëgg bokk yi daje wut lu moom ma dox si ak bokk fedd li kóllëre indi di seeti ay soppe ak i xarit ak i bokk jaral na ma ko nag ndax sëriñ bi na sur man tuhib وإن سطت بك دار وحل من دونه سهل وأوحار من لا يمنع عنك بعد من سيارته إن المحب لمن يهواه سوار تبابا خلات قمي خلات بغد مكة جل مدينة المنور بتيم برب ينتبه صلى الله عليه وسلم لو رك لبغندخ كفيل جمام ديغنتي ما ينتبه tubaab yi sonal ko ci exil yi ak di déporté fa nañu wërale ko fa jël këram def ko résidence surveillée ba loolu mayuñu ko liberté mu man koo def mu mel ne nag day wax ak boppam naan siyaare jël ki nga sopp donte fa dëkk daa sori donte ay montagne ki désert dox na sa diggante ak moom montagne ak désert yi wërtatee jaam jug siyaare ji kam sopp mu melni ni bi sallallahu alayhi wa sallam dafa deg ndey lolou motax bim ñu mu ci darul manan fa la ko yonent bi feeñoo mu bind na ila ilal jannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana sara ahmadu sama kër gi ci darul manan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na siyaar ma fi lolou nak ñi amul xam-xamu baatin man nañ ko sikki sak waaye soo mënee nangu riñaanum yonent bi dajee naag yonent yi ko jiitu woon cent vingt quatre mille yi jiite leen julli ci Jérusalem te ñoo ñu di ay way dee soo lijjantee mbir moomu di nga mën a nangu gisab sëñ Tuubaa ak yonent bi ndax nit ñi li tax mënuñu ko nangu mooy temps yeeg espace yi du benn daarul manaan ak madinatal mun na munawwar ngay wax sëñ Tuubaa mi ci àddina yonent bi nekk ci alxayatul barzaqi loolu mooy nekk sa problème waaye dangay gis ne dajeeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak anbiya ya ak mursalina ya ca Jérusalem ci masjidul aqsa ñooña ay way faddu lañu yonent yi ñii dañ leen a yéegal ñii ci des dañoo faatu ñii dañ leen a rey ñii ñu lakk leen ñii ñu tooke leen li banu bi ñu rey Yaxya fekk na rey nañ soixante quinze wala 74 yonent yoo xam ne rey nañ leen doog cee teg yonent yàlla yaxya kon reyee nañ ab yonent nu ne ñoo ñii nag faatu yonent yooyu yëpp yàlla dajale na leen ci baytil maqdis yonent bi sa alayhi wa sallam jiite leen fa julli léegi boo mënee nangu julli ku faatu ba ne barzaq ki nekk àddina jiite leen di nga mën a comprendre naka la sëñ Tuubaa gisee ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci daarul manaan kon bëgg bu xasee am ak cofeel mën na réduire temps ak espace bu dul ci baatin nekk ci zahir fii nu toll li li fii di sori sori bi may ñëw jëm si ci ay soppe ak i bokk yoon wi du metti ci man te moo ne ku ñàkk jot la ku jànkonteeki coono la waaye bu fekkee ne fu ma dem fu ne wut lu ma am moo may yóbbu duutuma mën a doxuk bokk bu fekkee ne foo jëm fu ne yaakaar luñ lay jox moo la yóbbu duutoo am xarit duutoo am kóllëre te man bëgg naa di am i bokk di am ay xarit di am ko ay kóllëre ndax ànd néew doole yàqu ko ñàkk gore moo yàq ànd xam naa barab yi am ay immeuble de xam gaa yi kaat kaat ndax bi may ñëw ay docteurs ñi ngi ci yoon wi ay ingénieur ay homme de tenue te ñoom ñëpp kat ndigal lañuy xaar ku ci ne ba ma la woo rek da nga bàyyi la nga doon def ñëw kon su ma bëggee lu ma dama naan maa ngi leen di yàndool si te bu ma yendu jee bu ma fay jógee bu ma nee nangam moo doon sama yitte danañ ko def donte du awuma habitude boobu waaye dox si bokk ñoom it dana am luñ ci jàngee ndax bu ñu ma gunge see saay bokk buñ fi jógee dañ fonk seeni bokk am jàngale la kon li nu indi dañ koo fekk ci yéen muy am fulla am fayda bëgg seen bopp te loolu rek mooy li am solo dégg na am na ko borom daaru doon sanciloo mu di ko wax ah man de sori waay gi rek ma jaaxal borom daaru na ko fexeel ba am njariñ ku am njariñ fum mu sanc du sori ndax boo xasee am njariñ foo ne ñu fekk la fa kon benn dëkk soriwut fexe leen ba li ngeen war a def ci dëkk bi ngeen def ko ndax at yiñ fiy ñëw ci njëlbeen gi groupe ngeen daan indi pour nga wax wax ju leer du mën a nekk parce que groupe bi fii la doon nekk di tàkk ñu ñaan yàlla tawfiq ba tey courant baa ngi fi groupe groupe ñëwatu fi bâche yi ngeen doon indi tamit euh, yu yamba mbaay la daan doon waaye mi ngi am amélioration mm-hmm. te gis nga lu nit taxawal te yàlla lay tay ko mm-hmm. tànki kanam lay am waaye lépp lu nit taxawal te ngis tal lay tay ko du dem loolu sëriñ bi naan dawlatul baatili saa wa dawlatul xaqi ila saa nee na lépp lu nit def te du dëgg du am fondement boo tegee birig day daanu bi maanaa diggante bi nga ko tegee ak bi muy daanu waxtu lay maye ndax da ko fondement ci caaxaan waaye ne li nga fondement ci dëgg digub yàlla la jëm ila saa ndax alxaqu saabitun mu ne wa ama albaatilu wa in ala fa saaiqun wa saafilun dëgg day sax lu dul dëgg nee na bu laalee asamaan tamit bum la jaaxal day day màbb kon ànd bi bu laytaayoo ci dëgg ñu lal ko ci bokk lal ko ci ngor fun bëgg mu yegg fa dana fa yegg te barab bu ma mën a dem lu barab ba rëy rëy rëy ngeen di ko gis ci tele yi wala fu ngeen ko mën a gis barab bii ma ñëw bokk na ci yi gën a neex ci man ndax bu jëkk bi ma fi ñëw te taxul ma miin ko lool bale jóob laa fi njëkk àndal ñu jël saxaar bi ñu nee cëpp ci biir dugub ju sëq lañ jaar xuus ci biir dugub ji doog a génn dugg ci kër gi ba léegi image boobu day des ci man mais mënumaa dugg ci dëkk bi sax ba xam fan la nu saxaar gi wàccee ak fan lañ xuusoon ci dugub ji bay ba dugg ci kër gi <laughs> ah? ah foofu la waaw booba toolu dugub bu sëq moo fi ne boo nee cëpp ci saxaar gi ci biir dugub ji ngay jaar xuus pour dugg ci dugg dikk ci kër gi noonu la doon demee loolu mooy sama yoon wu jëkk moom it yàlla def mu doonoon puso ci biir bokk gi mën a ñaw moom bu rombee benn ginaar fële sax ginaar ga tumuraanke bu bëggee nga toppatoo ko dalay xëmoo ko nga ne déedéet mun a sa mbokka waaw bale ginaar gu tumuranke su bëggee nga toppatoo ko lim lay wax mooy xamoo ko nga ne aha ginaar la de mu ne moo ne sa mbokk de loolu noonu la fonke ak bokk bi max naa kuy def noonu ci bayi ma rawatina nit bale dafa mën a ñaw bëgg ak bokk fexe ba ñi soree mu di leen jegele te loolu lu am solo la loolu lu am solo la nit ñi léegi léegi barke daf leen ni déraciné barke ñenn ñi am am déraciné leen fi mu toll am na ñoo xam ne dañoo amaguñ de mais amaguñ melo amaguñ jikko am na ñoo xam ne amaguñ jikko bala nga xam nit ñu mel na fekk mu jekk ki jekk am na jikko ki jekkagul amagul jikko ndax bu jekkee mën naa jekkale da ngay gis ci biir fami koo xam ne day maneeg nit ñi fekk daa mën a gut mu jekki-jekki man duutu ma ne kenn ci biir bokk ki day commencé fuuyu soo ko ne badde mu ne non foofu àll la non duma fa mën a dem waaw en tout cas nañ bàyyi bu nawet bi jotee moomee lu ma yónnee yónnee ko génn xeet day am day am boo mut fii tamit du ñàkk mu am fu soriwut ci yéen am na menn mbokk mu ma ko doon wax mu ne suñ dëkk dañoo complexé ndax bu amee oto au lieu ñu def ko ci numéro matricule raison boobu mais DK lañ koy def parce que fekk benn ndar-ndar la may waxtaan moom mu di ma ñun ñu dëkk ndar daal jaaxal na ma pour SL daal ci particulier yi ak moo néew deekaa rek mel ni bëggatuñoo dëkk ndar euh, daf ma ko doon xëy na ko seetlu ci ñenn ci ay bokkam waaye yooyu yëpp complexe la nun daal li nu indi mooy feddali kóllëre ak bokk ak di ko dox ak di root nag di suuxat garab googu di root di suuxat garab googu ñi fi ne di ay ndaw loolu moo war a doon seen yitte ndax wax naa ne man su ma toogoon ne duutuma ñëw fii yi ma daan def yépp boo ca demee doo gis benn bu manqué su ma toogoon ne ñëwatuma baddeem amul dara lu ñuy dem fekk ma daan ko def nga fekk ko muy manqué virgil ndax yàlla dafa ma dimbali lu jiitu may ñëw baddeem fekk ne li yàlla di dimbalee ab jaam am na lu ma dimbalee lu baree bari waaye yooye laa feggal ne ngir bëgg ma nekk saay bokk waaye ya ca nag mooy bu mbokk mi defee ni mukk sëñ ay dafa ñëw di wut lu mu am bu ngeen koy gàttandu jëru sax ngeen koy gàttandu en tant sëriñ nañ ko gàttandu en mbokk mu jëm ci mbokk rek te li nga doon du tee nga nekk mbokk mbaa jubluwaay dama koy faral di wax imam sekk mais dégg ko léegi mi ngi moo ne taalibe wàccee ba sekk la waa kër Cheikh Ahmada Tidiane la waaye fi ndool boonu fokkee ci mbooloo ah ndax di nga ma mën a nekk di lijjanti kii doon ak nangam nangam parce que dañoo ànd di ay jullit ànd bëgg lu baax man noonu lay jëflanteeg nit dëkk bi nag comme ñi fi nekk ay ndaw moo ci ëpp te ndaw mën nañ ne bénéfice la ndax dañ ko rawee tubaab yi tubaab yi bi ñu demee ba gis ne seen économie bu ñu wàññiwut njur mi dañuy dem ba li ñu am ci xéewal ñoom dañoo defee ne ñiy judd mën nañ koo xewlu te sëtaat yi duñ ko fekkee ñu tàmbali nag def ay planification pour soreel njur mbaa wàññi ko xalaat boobu ñu am ñoom dafa tax ñu perte ay génération génération yooyu ñu perte tax na immigration doxoon ndax saa boo jógee di fa dem liggéey day yomb parce que dañoo manqué ay ndaw am nañ ay màggat yu xubbidaas ak ay gone yu mën a gut liggéey parce que sénération bi rupture bi am ci diggante bi moo tax ñun nag boo nu xoolee réew mi ñu yor génération yëpp yàlla baaxee na nu ñu am leen foofa dangay ngay gis màggat goo xam ne doomam mën a guta liggéey parce que ginnaaw ñoom mën ngaa toog lu yàgg ak jigéen sax te doo ko marié gul wala ngeen dem ba sa doom màgg sax fekkee mariage su baayam ak yaayam ñoom seen aada du sun aada ndax nun sun aada ci diine lay dox ginnaaw yàlla may nañu wërsëgu tuut tànk nag ah dëkk yu mel nii dañoo war di organiser wu boole seen bopp waaye burut loolu li ma gis dong li ma gis fii dong laay gis mooy ay bopp yu rëy lool tol ne bopp mel ne bopp ba noppi ndox nekku ci waaw bopp dana tol ne bopp mel ne bopp te du doon bopp de waaw te fii nu toll ñi ëpp ci ñi dëkk ci village yi boo leen yóbboo Dakar su ñëwee dañuy rakkaaju waaw waaw dama leen yee rek ci àddina parce que kaw kaw buy nànd nàndulu dafa metti bu ñu xasee dugg ci dëkk bi seen bàyyi duutuñu dégg kuy ñëw fex da ngay fexe ba jënd benn kap jënd ceinture jënd timberline wut sab jëngal dégg nga daal di yor sa portable def ci say say son daal di wut say chaîne yoo xam ne nag yaag berse allemand yéen a yem seen yu nganda nganda ngand danga ci gis koo xam ne pour mu woon yaayam ne ko tekki naa déglu leen ma rek dama leen di dimbali dama leen di jàppale da ci gis koo xam ne pour mu woon yaayam ne ko tekki naa suy ñëw ca arrêt ba lay wàcc daal di wutaaleeb rajo da ko yokk ba mu sës de buy dox di ñëw nag day yaaba fu nekk tànk la fay sànni dugg dëkk bi bu rombee paa du jàddal kenn parce que sensé na day wane na non paa comprendre ñu àddina bi ni muy doxee da leen di démystifier du taw nangoo am kilifa pour nit ñi dajale dajale leen sax ñu bokk jubluwaay bëgg a xereñee ci dara ci liggéey walla dara du mën a nekk parce que localiser leen moo dul yomb waxkat ba dane téeméeri ginaar ci kaaf boole leen ca yomb na waaye fexe ba bopp yàgg geen ya jëm même orientation moo jafe boo fexee ba defal ko quarante yeneen soixante yi da ngay dikk fekk ñu tasaaroo fu ne kenn ay ndaw noonu la ñu mel dañoo jafe organiser rawatina nag ñi jàpp ñoom dañoo nekk au diapason nekk ay nandate waaw fi mu toll boo nee ruuma naan naan non sëñ baa ngi ñuy cëppeel de hmm, hmm, waaye man sëriñub nandate la mane naa ak boy disco mane naa ak kabasa mane na ak ñoom parce que ci loolu lay liggéey man ci nit lay liggéey ni pël xamee nag xam gaafi nag noonu laa xamee nit ni naar xamee gileem noonu laa xamee nit ndax ba ma dem ay dara di ndaw ba tey ci diggante nit ñi lay dund jugee ci ñu yar ma ci yar nit ma yaru ci yar nit jugee ci di yar ay nit waruma dajee kii nit di leen umpale boo xoolee biñ tàmbalee rek gars yi di jàng nii xasida yi gars yi dañoo def seeni groupe nii def seeni rond toog ñii taxaw yor seeni portable ka ji kay doon naan tega nag mooy jàpp benn Youssou Nduuram xàlli dem fële pour jéem a woo boy yi wan leen ne noo fii gars yi ñoo tàdde ay affaire yi jàng yi te pourtant bu Wally tëggoon ngeen départ wuti Louga bu la xale bu jigéen noonu kar mbaa mu lancé la benn message jël na sa yitte te bu ñu wax ci yàlla du jël sa yitte pour lan da ngay passé temps est-ce que li nga am ci temps xam nga ko parce que kuy passé temps danga war a maîtriser temps waaye passé temps te amoo maîtrise ci temps ci biir temps bi ngay passé ci la la yàlla di lottale ñaata ci seen maas yi ñooy faatu ñaata bébé ñoo juddu faatu ñu tuddee ay morne kon koo dégg mu naan damay passé temps daa xamut li mu am ci temps ku xam li nga li nga am ci temps da nga koy sakkanal parce que def lu baax xëju ci waxuma ak def safaan ay projet ngeen war am pour développer sen deuk yew sen bop def ben boom, bolé seni xol lu ne man naa ne di ndax jomay mi dan rosé salatu bayam deng nga ko ko non di nga don président de la république ah man de sama buntu kër la don joxoñee sa way na ko bu yaw yow duñ nangam ci sama buntu kër kër sar fa lañ ko defee booba defee na moom Ousmane sax ba mu jëlee di ubbi waxtaan dane maa ngi nuyu ay Aydara Mbakke sama xarit sama sëriñ waaye booba jomaay mii mi ngi koy joxañ naan ko yaw bu dul yow ndekete moom bi mu ko naan yow yàlla nee na ko yow xoolal dëkk ba mu dëkk xoolal bokk yam am ñepp seen loxo jotu seen ginaaw de waaw léegi kon yan président de la république ak ministre ak député ñoo war a génn fii wala yéen bëggu leen a doon ay chauffeur ay puuskati oto ngeen bëgg a doon ok xam nga ki nga xam dafa bëgg a leadership bëgg a jiite bokkut ak koo xam ne dafay yàccaaral di xaar ñu di ko jiite nit dafay nekk révolutionnaire waaye dafay nekk visionnaire xam nga booy booy eh, wax ne damay bañ dara ci réew mi te amoo benn gis-gis bu sori du sotti su fekkee ne seen yitte yëpp dafa yem ci bu tabaski ñëwee ngeen am benn jean ak benn lakos dégg nga wala benn body sañse photo wu ah sëñ bi <laughs> loolu dafa yomb picc yi sax am nañ loolu picc lu mu sàggan sàggan sàggan buy taw dana am fu mu làqutu jargoñ rekk a ko mut ndax yàlla da koo misaal ci ñuy wut kilifa gudut yàlla ak ñiy jéem a wut yàlla judut yàlla yàlla nee na mi ngi mel ne jargoñ ak nam jàppee këram inna awhana al buyuti la baytil ankabuuti ca yàlla newut la baytale ankabut de ankabuti science dem ba yëg ne ndekete jargoñ bu góor sax munta defar lënd maam kër mën naa def am lënd guy génn ci ginnaawam nag mu di ci jafandu comme buum waaye du lënd kër gi ndekete te yàlla bi mu wax waxut bu góor bu jigéen la wax na aw inna bu buyuti la baytil ankabuti yàlla nee na kër gi gën a garaw ci kër yi gën cee ñàkk solo mooy këru jargoñ loolu nag am njàng la mu rëy mu ma bëgg waxtaan ak yéen gis nga jargoñ coono bi mu def ci rabb këram bay bëgg a dee bu ca dëkkee du tee bu ngelawee mu yëg coono coonob jargoñ ci këram du tee bu naajee naaj wi yegsi ci moom coonob jargoñ ci këram du tee bu seddee mu yëg ko coonob jargoñ ci këram jabar ji du ko déggal doom yi du ko déggal ndax jargon, balaa andak ak soxnaam dañuy xex ba sonno mu doga ànd ak soxna si te bu sey ak mom ba fiira nga day tax day bëgg ray jabar ji mba mu damu tank bi ca pay ngir bañ ci len sey ak mom motax tax jargooñ bu jigen bo gis mu am dom bam sey ak bu goor ba ba noppi daa ak mom ba recc daw mba mu ray bu goor ba bu dul loolu du am dom momit fu mu amé dom moy defar kër gi dëkk ca waye moy bu juddo buñ def moy ray seen yaay moo tax alxuraan ne inna bu buyut la baytul ankabut loolu nag njàngale mu rëy la yàlla waxu ceeg mala yi kese mais dañuy wax ak nit ñi ndax boo yaram xel doo ko jëfandikoo dafay wax ne ulaayika kal an'am ñooy ñoog mala yi ñoo yem kon ay nit dañ leen di éveiller yar yee leen bañ na jar bu dul loolu da ngeen ne seen ruq bii rek politicien bu ñëw ngeen puus ko bootoom tàkk après ngeen daw topp ci parce que ñàkk ambition mooy waral loolu kon na ngeen farlu nungoo liggéey tool yi gars yi bàyyi nañ ko tool yi baax na de te benn xale boo fi laaj machine boo wax non mbay daa metti gis nga gis nga même yow mi bàyyi bay ne dafa metti mais yaa ngi seetaan làmb làmb lu ko gën a metti saa boo xëyee di nga dem saal yanu ku gën a di sa bàyyi muy muy weñ yooyu ñuy yanu moo gën a di seen bàyyi fopp dem din ya di yëg ci din yi di wàcc yow miy seetaani làmb képp da ngay sonn waxuma kii bëre kon la sëñ dam waxoon benn waay ne ko ne ko dama bëgg nga ñaama ma dooni milliard sëñ bi ne ko bu lewee day li koy mayee box moo ci gën a sedd bu fekkee lew na waaw ah, waaw waaw da koo bëgg a ne yombut liggéey koy mayee bu dul loolu taf yëngal ak business ngay def te business moom la ma waxoon sama ngóor si rek nee naa ko business moom bis nuus waaw bis dana ñëw bis xam nga sax la tax duñ ko ba mooy business bis noos yi da ci ëpp bis noos bis yi ngay noos da ëpp waaye bis nuus dafa am ak bis ñuus da ca am te koo gis tey nangootu a liggéey dafay xool lan moo gën a mën a yomb pour mu am te du sonn moo tax benn gone goo mën a delloo ci tool amut te man dama tukki ci réew yu bari ci àddina bi waaye dama gis ne ñi fonk mbay ñoo ëpp alal ci bitim réew ñoo ëpp léegi rek maa ngi koy wax defe naa ak mbay mbub mi bii ñëw ma koy woon toolu alaaji jiili bii ñu bari liggéey nañ ci ñoom bàcceeg sa gaa yi ñu bari liggéey nañ ci toolu alaaji jiili mbay bi parce que da doon développé euh, waaw baaxoon na fii ab yëngukaay la woon waaye léegi imaginer léegi nit ñi niñ dawee tool dañoo daw tool yi ma di ko mbay ma ne ko moo ne léegi ku defaroon sa tool gas fa teen muy fonctionner ak solaire nga di fa bay ay mbayum noor mais day baax fi nu toolu gars yi nangu nañoo cotiser pour organiser baal wala def sortie wala def non mais cotiser pour def projet kooku problème parce que ñak yar gi ak ñak xam adina moy sa cotiser jox kenn mu lekk mbolo mi ba ci natti yi sax lolo koy toj moy sénégalais mo xamut organiser dañuy dajale jox la nga ca yey buñ sax waroon na laa may doo ko waaye da nga naan sama xew démb ba baa ko ciy dugal xam naa yëguma ko ay wax yu ñàkk solo te yooyu ngor fekkewu ko diine fekkewu ko ab jullit dafay am jom am ngor rafet jikko rafet melo neex a jëf jëflenteel xam nga ñu bari bu ñu ñëwee ci dëkk yi ay village foo mel ne Darou Mouhty wala Baddeem wala beneen dëkk bu mën a doon pour ñoom lu aju ci développement ci plateau Dakar nga war a toog wala ci télé di wax ci développement te développement man nga am ay usine nag lu ne nga am ko waaye da ngay am ressources humaines da ngay am nit ki ba pare ndax boo amee machines yi te moo nit ki société bi du dem li gën a jafe nag yàlla jox na leen ko mooy ndaw ñi. léegi ñun ñoo ñun ñoo mag ci ndaw ñi te commencé cee xëy tuuti ci wàllu addina ngeen commencé def seen entreprise yu ndaw commencé di yëngu. loolu moo fiy jëlee seen kër bàyyi di ay sàkket ngeen def leen taax. looluy tax li ngeen gis ca Ndakaaru ngeen investir bu dul loolu dangay dem ci barabi jàmbur yi di xemmeem te yàlla la jox kàddu bu rëy muy xel ak kattan te laps de temps nag la kattan di def ak yow soo wettee loolu xoolal sa maam wala sa baay boo ko rëddalee rëdd ci buntu kër gi ko tëb ko du ko tëb te yéen ñi kuñ ci tegaloon banque bu toll fii nga ne ko lay da jëpp fële loolu benn laps de temps la te sa bàyyi mënatu ko sa maam mënatu ko kon li ngeen yor ci kàttan lu luñ leen may luñ leen abal la mais cadeau la cadeau boobu nag da ngeen a war a xool li ngeen ci war a def ngeen def ko ci gaaw borom daaru daaru wax ni ku amu nag mu am doom nee boo amee xel da war a gaaw a rat te xam ne lu xel mm-hmm. gis nga yéen ñi ñëpp di ngeen xelal yàlla daa maye kattan gi mais da ngeen saxal kattan mm. day jeex léegi-léegi ñu ne ci barab di jaay sax muy dox du investir de foofu mille francs te yow mën naa am mille francs yi boo ko dencoon fekk trente jours mu nekk trente jours jaay jomba ñaaw mën naa tax sa kër bàyyi gi nga ne jëriñoo fa dara waaye nga di kuñ daja tàggal ay doomi diw jaaba sa bay bu bal ko ci kër gii damm yóbbaale ko fay mille francs ñu suule bu nga indi ko ci sax sa fukki xel xalaatu da boo sooy ngoro boo demee seen kër boo fekkee piliyaanu bàyyam ba dajji ko daj waaw ba nga xam ah, ah, yi ñoom seen wàll dem na. ñoom tey fi ñu toll nii ay ëkk lañu boo leen doon suuxat duñ jebbi mag ak ëkk yam boo koy suuxat suuxat du jebbi mais ñii nag ay ëkk lañu yoo xam ne gor bu bees la bu may suuxat ñuy jebbi ci nit lay liggéey na ngeen farlu xasuñu leen dañ leen di wax fi ëddina toll nii may waxee bu ma demee Amérique noonu lay waxee ndaw ña ca biir saaliya parce que soxlawuma lañ may jox damay bëgg ñu dégg li may wax gis nga jamono bi ku la bëgg a si bëgg la far du la nax du la tap tapal du la jay da wax dëgg dëgg nak bokoy jox nit mo koy faj goma a yam docteur bi buy faj sa gom bi tane du ko xolli lee dag sa tank bi gom da koy xolli suy ci garab mais neus neuselu gom mo yàqub tank mm-hmm. kon farlu leen defar lépp dekk bi liggéey te bañ a yàq te wattandiku gaal yi wattandiku gaal yi ñu baree ngi sànku clandestin bi rek ay barça wala barzaq loolu kay waaw avion yi pour nit ñi la te bu fekkee ne yàlla bind na ko ci asal fala budda da nga dégg attaché vos ceinture nga xëcc sa ceinture ndànk tàkk avion bi naaw nga toog mu jëkki ne cëpp nga wàcc whatsapp saak ne ñëpp ñu contrôler la tamponel la nga génn ndànk jël sab taxi mbaa nga jël sab kaar dem sa yoon waaw jarut yàkkamti déedéet man damaa xam li ngeen di dund fi ñoom ma ne ndaw ñi li ñu li ngeen di live laa xam man <laughs> waaw waaw waaw waaw dëgg la de ndeysaan ndeysaan ndeysaan dëgg la de mhm. Mhm. waaw góor waay waaw góor waay waaw waaw bo booloo rek gis nga bu ngeen di nga gis nga dañuy jaawale mbooloo ak booloo gis nga bi ma tàmbalee xool nii macha allah ba fee gis naa ne mbooloo ngi fi waaye li may laaj ndax booloo ngi fi ok booloo bi nag mooy lépp te booloo gis nga su amul wóoloonte amul cofeel ak laayante biir du sotti mbooloo fukk mënuñoo jiitu il faut am kenn ku jiitu rek ña ca des topp ca waaw waaye amul cotisation bu ñuy def ba màggal daaru day day maanaam sëñ bi gis nga mbaax. murit bu baax. tiijaan bu baax. xaajir bu baax. ñoo ñaay jullit yi. waaye fi nu toll murit bu baaxut. tiijaan bu baaxut. kooku même foo mën a jëm tamit baaxut rek. te murit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu baaxee dana maneeg tiijaan. tiijaan dëgg bu baaxee maneeg murit. la tax munuñoo munuñoo mane am na ca ku melul na sëriñam bëgg màggal ko ne wax ko gars may leen fi ñu toll sàmmkat yi sàmmkat boo gis caaya ja bari xaaxam béy wu soba ko ko yóbbee waaye bu béy yëpp jaaroon ci caawa gi jaar fi ñu war a jaar caaya ju tax xaaxam hmm? Hmm? kenn ku ne la ngay sàmm dafa am lu la ca noppal ak lu la ca sonal kullukum raain wa kullu raain masulun an raayatihi waaw kon nag tey dama jël thème bi uniquement pour ndaw ñi parce que ginnaaw bu ma demee ci biti ndaw ña lay dajale ñu ne ci ay liggéey ñu am yitte ci ma di leen nàmmaat ak di waxtaan ak ñoom di ko def extérieur di ko def fépp ci biir senegal ma ñëwaat ba fii nga xam ne saay bokk fi ne ngeen di dégg may yàdd doomi jàmbur ya te yéen ñi jotu leen ci seen wàll xam leen ne kon la may wax ca ca biti waxuma laa war a wax fii laa ko war a wax waaw waaw waaw dégg nga fàllu mii mu ne loola nga def ci noonu moom moom mii tey ji ay bokkam ñëpp ko bëgg te naw ko te lu jiitu moom booy town la woon te pourtant mi ngi dëkk tuuba juddoo Touba dëkk daarul minan defe naa daaru minan la dëkk ci 28 foofu mooy mooy xolub Tuuba daanaka rek mu jógee fa dem ndakaaru waaye dafa yegg dakaar rek mel na waa Dakar waaw di laal ay juin xam ngeen ni juin ah waaw man ngeen ko xam te du ngeen ko def damay laaj rek waaw ah waaw kay alhamdulillah. waaye pour ngeen bàyyi xel moom mi waa Touba la de dem Dakar waa Dakar wàllu ko jikko mu mujj di tux yamba mel ne waa ñooña ba mujj mu romb leen yàlla dajale nu ma récupéré ko dellowaat ko Touba mu amaat melaw waa Touba kon dakaar wala tukki dafa mën a soppi nit dangay gis ku jub ci seen dëkk jékki-jékki génn rekk am weneen melo léegi jëmm ji toog magi bàcc bi magi sàmb mi nee na bi mu yor oto dakaar xamoon na fàllu mi waaw waaw waaw fi dëgg la ñu dëgg la dëgg la. ba mu hmm. si dëgg la dëgg la. te gis naa ci moom loo xam ne lii. Hmm. <laughs> <laughs> wàllu mi ne ci noonu. Mm. nu nekkandoo. Mm. bëgg na ñëw fii jàmm la séq. Mm. lépp la séq ba yàlla dogal fekk boole ñu fii. Mm-hmm. tey bu yàqu yàqu amoon. day du ko ni du ngeen mën a gisee. Ah, du ngeen mën a gisee waaye gis nga ko tawféex ji maam. te du moom rek. Ah. xam nga xam nga boo gisee ma buñ ko filmé mooy njàngale lañ ci jublu mm-hmm. léeg ñu defal la théâtre. nga gis kiy joué théâtre bi rey nit ñu naan ak a bon fekk rôle bi lay joué pour am lu mu jàngale waaye même boo demoon këram kañ rey sax ñoom ñaar ngay fekk ñu toog déewut dama dama bëgg a jàngale ci moom ndax moom ñi ay même génération lañu te bi mu ñëw ci daara ji daanaka bàyyi daam mais ko fa indi te moom maa yar ay magam sax waaye fii nu toll waxtu yi muy jug di def lay layli ak yor kurusam di tudd yàlla nekkutoon ci loolu te loolu mooy fexe ba tëgg ko mu dellu si ci société bi te bu doon ne mi ngi ci ndaw googu rek lu ne mën naa xew dama am benn kenn ci cheikh yi cheikh yërmande mu ne ma gis nga Mbàkke am na may ko bu ne ca koñ ba nee na bu la gisee daf laa war a jox addiya ma ne ko lu tax mu ne moom bu masaan a jaay ba wàcc dama koy kar nangu lim jaay mu ne ma nee na yow mi ma defar la bëgg a gis ba jaa jëfal la parce que bu amee lum réalisé ca Guinée ginnaaw yàlla maa tax Cheikh yërmande mu ne ma gone yu bari mokkalee nañ alxuraan seeni dëkk ñëw Dakar maa leen njëkk jox sàngara ñu naan mu ne kon du man nga defar waaye mbooloo nga defar ndax bi ma yàqoo yàq naa ñu bari yooyu nag bu ngeen ko dee dégg da ngeen koy éviter xam ne complexe du tax nit mën a dugg Dakar rek génnaat ay famem ñàkk ko ci jikkoom wala ci meloom wala ci comportement kon tey yéen a aye ma doon leen jox dars ndax ëllëg gi si biir ndaje yi gone yi lay doon su fekke preparasi préparation amut bu ëllëgé booy ñëw bu gone yi dajé doon ay mag day am mag mu sàggan mu ne ci ginaaw te fekk ne bi mi doon daw lañ ko teggut am ko bu mag ñi fi ndul du ñëw te mag lay doon waye ba mi saggan da yag te lo ragala am aw magam rek bul jëmbat ay ndawam kon nak no ngi leen di sant no ngi leen di gërëm di leen ñaanal yalla tay sakku ci yeen ngeen ñaanal nu yalla yalla defal nu njëggal adina ak yalla yalla defal nu sutura yalla defal nu jamm yalla may nu wer may nu nu yag ko fekke di sant sama bokk yu tedd yi tew imam wa dekk beeg ñep rek euh, sant wa kër gi bu baax ak seen taxaway ak seen yitte ndax seen alal yi ñi jël diko toggi ñam ngir bégal bokk yi ak yàkkamti daje bi loolu ngeen di def yàlla xam na ko muy njabootu dama bëggoon ne moor xëre ak njaga ku nga lim sax ma ma ne njabootuk Abdourahman Fall gépp rek waaye njabootuk Badem gépp rek awma ci fenn foo xam ne rek dama koy joxañ bàyyi fa ca des sama ñëw gi ñëw la pour bokk képp sama ñëw gi ñëw la pour ñëpp na ngeen ko xamee noonu seen gan laa yéen ñëpp donte su ma ñëwee ci benn néeg dong laa mën a ne wala lu ko moy boog dangeen may def fukki ay dara waaye comme benn ay dara dong laa ci benn néeg dong laay ne toog ci benn ban waaye bu ma sañoon kër yëpp laay tàbbi maslaak ñëpp waaye bis bi laaju ko te danaa def sama kem kattan ci su ma ñëwee kenn bañu a wu ngir xam ne ñëw gi dama ko defal dëkk bépp defal ko lislaam bépp ndax su ma teewee njabootug Tiwaawan ne fi man maa fi teewal xalifa général bu ti bu Tijaan bu fi xaajar nekkee maa fi teewal waa kër Cheikh Abdoul Xaadir Jilaani wala Cheikh Cheikh Saad bu bu fekke ne ay murid ño fi ne ma fi tewal tariqatul muridiyya bi yeb su fekke ne tamit ay doomu adama donga fi tew di ay nit su boba ma tew fi wuy wote bi ngir jëmmi yalla aw kon no ngi len di sant soxna Bousso yow it jërëjëf bokk yi ñing may wax sa taxaway ci bir bokk gi ak ci coono yi ci jëflante bi lolo yalla mo am pay waaye noo ngi sant daal bokk gépp kenn ku nekk ak taxawaay ba nga ci am yàlla tax nga def ko waaye yàlla tek na ci bët te am nag pay yàlla na yàlla fay asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.